mbokk yi dal leen ak jàmm jéey amatina si diwaanu Malika ginnaaw faatug Aminata Ka mi nga xamante ni bi boroom këram moo ko faatoon am na geneen gone gu góor gu faatu sa diwaanu plage bu Malika moom mii ay agresseur ñoo ko faat gone gu góor gu tolloon si fanweeri at ak juróom-ñeent doon wuyoo si turu Abdourazak Kane lay agresseur faat ginnaaw bi nga xam te ne bi fekk nañ ko sa plage ba si altine yi ñu génn ba timis di waaj a jot moom mu ànd ak as ndawam di doxantu agresseur ja laaj ko téléphone ba nga xam ne moom la yoroon mooy jaayante ak ñoom doole si lañ ko ñemee ñetti paaka ginnaaw bañ ko yóbbu hôpital sa yoon wa la faatoo di jéey ju doy waar joo xam ne am na si diwaanu Malika tax ñi nga xam ne ñoo di ay waajuram nekk si njàqare bu baax a baax ay waajuram ñu ngi ci njàqare boobee ba léegi moom gone gu góor gi nga xam ne moo faatu woon foofu ci diwaanu Kaolack tuddoon Muudu Seen njàqare jooju ñu nekkoon nag ba léegi ñu ngi ci ndaxte ñoom ginnaaw ñaareelu autopsie bi nga xam ne takk der yi amal nañ ko ay waajuram ànduñu ci benn yoon ndaxte boobu la autopsie mu ngi naan mort naturelle la Muudu Seen amee te ñoom ñii jàpp nañu ne seen doom dañ koo faat ndaxte yéenekaay bi mu ngi fàttali naan Muudu Seen mii ci jamono ji nga xam ne faatu na moo dañ koo ak ab sàcc dóor ko ba mu faatu foofu si diwaanu Kaolack te monté ab élève la bu tolloon si fukki at ak juróom-benn tax ñu ne seen doom duñ ko suul fekk ñu leen dëgg gi dëgg nan la demee lu waral seen doomu faatu. di jéey ju doy yoo xam ne amoon na foofu ci diwaanu Kaolack li doy dëgg bañ koy jaawaleeg film bii di prison break kay mu ngi amee ci diwaanu Sandaga libération xëy duñu nettali ni nga xam ne noonu la jéey yi demee ay prisonniers ñoo rëcc ñi nga xam ne ñoo di takk der ya foofu sa marché ba ñaar ne puccat daw réer mër ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ba léegi kenn tegu leen bët mbir mi nag ni mu demee buñ sukkandikoo ci libération moo di dañoo amoon retour de parquet ñoom ginnaaw bi ñu leen di fi nga xam ne moo di commissariat bu oto ba prisonniers ngi fa nekkoon yëpp daal di génn tas sa biir marché ba ñenn ña takk dere jàpp leen ñaar si ñoom ne mes ne menteng ba léegi kenn tegu leen bët muy jee ju bu ndaar yi neexoon wiiri du am waaye wiiri wiiri jaari ndaar yi Seydina Fall delluwaat na si section de recherche bu Colobane ginnaaw ñaari njuuy yi nga xam ne moom la leen amal turbine yéene kaay naan Bougazelli egsi na nag di wax dëgg-dëgg lan ma waraloon wuyu ji wut woon ñaari woote yi naan dañ koo complot di weddi it tuuma yi nga xam ne moom lañu teg si deram naan moom mii liñ koy taqal jegewu ko laalewu ko te am daram set na wecci wal fu ko dëjee naan ak lu si mën di am Bougazelli génn na si làqatu gi nga xam ne làqatu woon na ko te ñëw naan defuma dara dañ maa tuumaal enquête yenn kaay naan démission bi nga xam ne moom la amal nag ab théâtre dëgg la ko jàppe ndaxte moom si kanam taskatu xibaar yi mu ngi naan démissionné wul waaye ki nga xam ne moo di président assemblée nationale biral na ne jot na démission ki nga xam ne moo di Bougazeli ba tontu li it tas na si yenn kaay yëpp les échos naan Bougazelli génn na waaye génnul moom kese ndaxte lu toll si fanweeri avocat la diriwaale si kanamu section de recherche bu Colobane ñoom ñooñu nag ñu ràññee si maître El Hadj mu ngi naan sama client taxut te laalewut si mbir mi ñu koy tuumaal te ñoom lépp lu ñu mën dinañ ko def ba génne ko si li nga xam ne moom lañ ko tuumaal vox populi moom jàppe li ab show dëgg ay fuural la ko jàppee yoo xam ne Bougazelli mu ngi koy def ànd kook ñi nga xam ne ñoo di ay avocat mu ngi naan wawaat nañ ko nag tey jii si ngoon foofe sa kanamu àttekat ya Bougazelli démissionné na si assemblée nationale foofe sa assemblée nationale ni ki démb lañ doon amal li nga xam ne moo jëm si wàllum saytu projet de loi bi nga xam ne moom lañu ñu war a dàqi élection locale yi waaye tamit yokk mandat ñi nga xam ne ñoo di conseil yi waaye ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye daanaka dañ koo xalal yoon wu yaatu woo xamante ni bii si la jaar te amul benn jafe-jafe li ko waral dëgg nag mooy opposition boo xam ne dañoo féewaloo ñiy jaar côté bii ñiy jaar benn boor Les Échos di ko gën a yaatal naan Mamadou Diop Decroix moom jàpp na ne projet de loi bii moom dëppoon na si xalaat ak Macky Sall moom Mamadou Lamine Diallo naan lii ak njunjaaj dong la Macky Sall duggaat ci dolli si njunjaaj yi mu nekkoon ma Bamba Dièye naan lii buñ ko doxalee moo di démocratie dëgg la ñuy salfaañee fii si biir réew mi démocratie gi ñi ndamoo sax mën na see jaaree fay am di Moustapha fay mu ngi yëkk di musiba ak mbelengaan di ko teg si Aliou ak ay ñoñam ci ni nga xamante ni bii noonu lay doxalee ci équipe nationale bi mu jàpp ne rupture bi ñu doon wax ba léegi daanaka amagu fa ndaxte Aliou Cissé moom mën na comprendre muy football loo ku ci mel ni Moussa Wagué ak ku mel ni Ismaïla Sarr te ñoom seeni club daanaka duñu sax seetaan match ya mu ngi naa nit ndaw yu mel ni John Lopy ak ki nga xam ne moo di Krépin Diagne moom mi da leen war a woo ndaxte avenir u bi dëgg ñoom dañ ca war a bokk te Aliou Cissé dëgër bopp gi mu nekk nag la war a bàyyi ndaxte ñoom si atum 2018 bi ñu koy wax mbiru Krépin Diatta dafa tontu woon ni dafa nekk ndaw te tey ji histoire jox na leen dëgg yooyu lay kàddu am di Moustapha Faye xëy ni waxee si xët wu njëkk source A jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah